الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد البشير النذير الأمين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله عن شيخنا مولانا شيخ أحمد التجاني صاحب الختمية والكتمية وعن شيخنا صاحب الفيضة مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم Niass سيرين بي bu بي خليفة xalifa بي tedd موتوك آه، nga خادم ne صلى الله عليه وسلم الخليفة الشيخ أحمد البشير man Cheikh xala xalifa Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké maa ngi lay nuyu di la wàccee wàccuwaay bi gën a sell ci wàccuwaay maa ngi lay jotal nuyoo l'islam bu sell bu bàyyeekoo sa soppe sa xarit alxalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima ak mbooleem doomu Cheikh l'islam yi ak muqaddam yi ak njaboot gi yëpp ak imam bi ak mbooleem ñu aju ci ñoom maa ngi lay jotal tam nuyoo sama njabooti kër Serigne Mamoun Niass sama rakk Cheikh Hamada Niass ak Serigne Mansour Niass son excellence ñëpp ñu ngi lay nuyu maa ngi la jotoon nuyoo tamit sa sa sa wëllëre sa soppe euh, présidente conseil économique social environnemental muy soxna Aminata Touré ñu ngi lay bu baax ak ñu umma islami bi yëpp ak Sénégal mboolem askan wi. Euh, bu loolu weesoo maa ngi lay ndokkeel ci taxawaay bi nga xam ne moom la la yàlla jox di ñaan yàlla suñu borom yokk la dëgër laay ak fan ak wér nga yàgg fi te wér euh, bi nga ootee rek l'islam bi nga ootee sa ootee maam bi bu sell bi muy xaadimu rasul moom nga dekkal ootee bennoo ootee jàmm. Eh, ñu lay ndokkeel ci masaaliku jinaan bi ak taxawaay bu rafet bi nga xam ne taxaw nga fa jubale eh, ñaari président yi jubale mbooleem ñu bëgg a juboo eh, bu loolu weesoo nag samay tànk tànk jàmm rek la tànk lislaam laa fi ñëwee tànk cheikh lislaam yi nga xam ne daan na ñëw Touba daan na dem Tiwaawan daan na dem kër diina yëpp pour lu dajale sëriñ si ak lu leen bennale lislaam bi nag yàlla wax nañu ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu nga nekk ci nag yow di ko jëfee di ko waxee ñun nag suñuy seen seeni doom lañ seeni njaboot lañ ma ñëwoon nag doon sàkku ci yow euh, sàkku sàkku boo xam ne nii ci ittey askan wi la ittey jullit ñi la pour lu gën a boole jullit ñi pour lu gën a boole kilifa diine yi mooy sàkku daje boo xam ne euh, yow ak ñii xalifa ci diine yi yéen a koy jiite hmm, te bugg naa nga dugal ci sa loxo bu tedd bi bugg naa nga def ci sa làmmiñ bu barke bi bugg naa nga def ci sa itti woo nga xam ne lislaam rek moo la ñor nga may ñu ñu jullit ñi may lislaam nooy borom bi kilifa diine yëpp dajee ci jotaay boo xam ne yéen yéen a koy tànn président de la république président Macky Sall tamit bokk ci opposition bi ak ki jiite labbe yi muy teraanga boo xam ne jàmm lay doon maa ngi koy sàkku ci yow te yàlla rek tax yàlla dafa dogal jamono yële ci cause yi bi nga xam ne fa la Mawlana Cheikh Ibrahima Niass eh, ootee faydam eh, fa laa nekk moom mënoon ñu saasa mën nañ fa dellu fa laa nekk ma defoon fa xalwa ñeent fukki fan suñu borom am yu ma baaxee na jaam su xeebu laa waaye jotaay boobu de bu amee dana nekk yokkute ci diin te yow dañ la cey fekk loolu daal laa ñëwoon di ci sàkku ndimbal yàlla yàlla dafa wax ci alquran ne wa in stansarukum fi diini ndimbal loo xam ne déew ci diin la da ngeen laa indi muy kóllëre diggante Baay Ñas ak sëñ sa maam bu tedd ba sa baay bu tedd ba ak diggante xaadima rasul ak ñun jox la ko muy kóllëre di la lentulu ci yàlla ñu gën a taxaw diine ji gën a taxaw askan wi eh, dina nuyu bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla di sàkku ci yow ñaan sàkkul ñaan mboolem julit ak képp koo xam ne bëgg nga lu baax loolu daal moo doon samay tànk bëgg naa it nga wax président Macky Sall mu itteewoo jotaay boobu moom it taxaw ci teew ci gouvernement bi teew mu nekk jàmm joo xam ne dafay dëggal jàmm ji nga xam ne moom nga nekk te moom nga tàmbali fa rek ci Masaalikul Jinaan te mosoon koo doxee tamit laata ngay toog ci xilaafa gi maa ngi gàttal wax ji ndax ñu bëri la soxla maa ngi lay gërëm ndax yaa ngi ci màggal waaye bi nga yégee ne man ci yàmbu xeeb bi maa ngi ñëw rek nga tatagal ma yaatal ma rëy na ci man lool ndax ñëpp a ngi la soxla pour bëgg gisante yow maa ngi lay nuyu maa ngi lay sant maa ngi lay gërëm maa ngi nuyu mboolem ni ma ko defee nii nag ci mbaaxu yàlla noonu laa ko fas yéene ci wër ci mboolem kër kilifa diine ku nekk ma dem ko waxtaan ak moom su dajee nag ñu del siyaat ci yéen su ko defee ñu ñaan ngeen jàpp bés boo xam ne loolu dafay am jàmm senegal la yokkute senegal la solution la pour jàmm الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه suñu mbokk mu baax mi ñu ko alxuraan santaane rek wa ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsani minha aw rudduha kon ñu ngi lay dara jàmm ci sa kër di la dara jàmm ci biir Tuubaa di la siyaare yaag boolem délégation bi nga àndal bépp bàyyi ko ca Medina Baye Niass di yóbbante nuyoo ca kilifa ga de Cheikh Ahmed Tidiane di ko ñaanal moom itam suñu borom bàyyi ko di nuyu mboolem njaboot ga yëpp bàyyiwuñ kenn Cheikh Mouhamadou Mahi Niass di nuyu itam sarak sëñ Mansour di bég bu baax ci jataay bi di nuyu suñ doom sëriñ maam Cheikh moom suñu xaarib aw ba maa ngi ko koy seeral barki démb ci taxawaay ba jitteem ndax xeexam bépp wala yëngutum gi ak dal gi lépp mu ngi koy jëme ci lu benn la kër yi loolu nag liggéey bu rëy la boo xam ne ñëpp la war waaye nag kon bu ko defee nekkal ñu ci rek nekkaale lañ ci ñëpp di rafet lu baax nag sa dikk yi tey ndax euh, alxuraan moo ko njëkk santaane innamal mu'minuuna ixwatun fa aslihu bayna axawaykum kon li ci Sëriñ Tuubaa waxoon rek la ñuy fàttali daa waxoon ne yaar rek fi nekk inna ak innama mu ne innamal mu'minuuna ixwatun mu ne ak tey la inna sheytaan lakum aduwwun mu ne ak nax la inna sheytaan lakum aduwwun mënu koo yàq kon loolu nañ xam ne suñu borom moo ko garanté di rafet lu baax nag sa tànk yi ndax xam nañ sa responsabilité te jamono ji xat na ak li la ci sa ginnaaw kon boo bàyyee sa yitte ñëw ngir doxal lislaam ak jokk ak bokk dañu koy rafet bu baax